suñ borom bu baax a baax. maanaam buñ nee Baye mu ne maanaam buñ nee Baye Fall. te Baye Fall di ci moom. te Baye Fall di dëgg ci moom. damay daal di gënal bopp man. mu ne daf koy gënal boppam moom mii Serigne. ngir jëmmi Serigne Touba. ma xam ne rek xam ne rek moo nekk ci xolam. mu ne lool rek mooy ekkado. dégg na dégg na mu ne Serigne bi Serigne bi neen dégg na kaddu yi bu baax a baax. mu ne li nga ci fas yëpp noonee rek lay amee nag. mu ne moom sëñ Bass mi lépp ci moom rek la ko jaarale woon. ñu tax ñu tax ci digg bi. waaw li ko fee li ma ko mbéy li ma ko mbéy bàyyi bas xool. boo demee ci kër ga. bu xalaatee lu muy lu muy def lu. ko wax baal muy wax xam ne fii fii lay wax. bu ñu si gis loolu moo ci des. am na solo loolu loolu la. nuyoo na ma la ko nuyoo na waaw ndaw. déglu leen nag. ndigalul sëriñ bi sëñ Ndiaye kàddu ndax bàyyi wax rek yow bàyyi la lépp moom sëriñ Abdou Khadir nee na jotaay bii day jataayu mbóot de di jataayu Pastef ndax ku nekk xam na diggante sëriñ bi ak taalibeem ba maam Cheikh Ibrahima Fall nee na kon nag jataay bii bu sëriñ Touba yëkkati ay jéegoom ñëw ngir xool fi mu toll ni ko sëriñ Moussa Mbacke waxe léegi néew na sëriñ Touba jug di seet si liggéey bu eggagul waaye seen yitte ak seen pasteef ak seenu taxawaay ak barab bii ni mu demee nee ndax lépp day wone mbirum sëriñ bi rek ndax nëgë ci si daaw la fi sëriñ bi ñëwoon de ku nekk xam na la fi nekkoon waaye sëriñ Touba nee lu mu bëgg. suñu borom da ko cay fekk si de ndax warul woon mën a gaawi nii mu gaawi nee na kon ku fi ñëw ba gis li fi sëriñ bi naan te sant leen ko ak pastef bi ngeen ci doxe sëriñ bi nee na mi ngi leen di sant bu baax di tàmbalee cant gi nag ci sëriñ Cheikh Jëmb Fall nga xam ne mooy kilifa njaboot gépp di ko ñaanal bu baax mu gën fay yàgg yàgg koo wéttali ci liggéeyu Serigne Touba bii mu ne yéen ñii topp ci ginnaaw Serigne Cheikh Jëmb Fall te ñëw fi teewal ko fi Serigne baa ngi leen di sant bu baax ak njaboot yëpp ni ko Serigne Falilou Fall waxe léegi rek yóbbaale na kàddu yëpp kon nag jataay bi daanaka du jataayu wax de ndax jëf mëntu ànd ak i wax. te yéen de ku ne xam na ni. jëf lañ leen xame de. waaye xamewul leen ay wax. nee na kon nag. sant rek moo ci war. ndax la Cheikh Abdoul Ahad Mbacké waxoon rek. dafa waxoon ni kër sëriñ tubaa dafa am bañ. kër Cheikh Ibrahima Fall am bañ. nee kër Serigne Touba. mbañam mooy ñàkk a joxe ndigal. mooy ñàkk a joxe ndigal. kër Cheikh Ibrahima Fall mbañam. mooy ñàkk a jëfe ndigal. jotaay bi kon nag jotaay bii. dëggal na ni. loolu daje na ci kon. loolu daje na ci kon. nee kon li ci des moo di sant rek. ñaanal sëriñ bi. ñaanal sëriñ bi. mu yàgg fi lool. te li mu bëgg a liggéeyal sëriñ Touba. mu àgg na mu ko bëggee rek. ndax moom amul benn yitte. soxlawul dara ci àdduna. lu may liggéeyal sëriñ Touba. ak bëgg ñëpp. dox ci Pastef. dox ci Pastef. di ko sellal di ko sellal. ngir jëmmi sëriñ bi. nee kon nag na seenum xel daal bu baax. ndax bu yëkkatee jéego yu bees fii. ndax bu jéego yu bees fii. lam leen fasal. lam ñu fasal. mooy li gën ci ñun. mooy li gën ci ñun. ndax sëriñ bi kat. mas naa liggéeyloo taalibe yi. mas naa liggéeyloo taalibe yi. te njaareem. ba noppee mu wax Cheikh Ibrahima Faati ni ko. damaa ngeen ngeen fas li damaa bëgg ngeen fas li ngeen bëgg. Cheikh Ibrahima Faty nañ bàyyi nga fasal ñu. Cheikh Ibrahima Faty ni ko nan bàyyi nga fasal ñu. ndax ñun buñ fasee dina am lu ñu fàtte. ndax ñun buñ fasee dina am lu ñu fàtte. kon kon nag sëriñ bi nañu fasal. kon nag sëriñ bi nanu fasal rek. fasalee taali bi yëpp. li nu bëgg lépp ñu am ko. li ñu ragal lépp ñu mucc ci. te lépp nag mi nga aju ci topp ci ginnaawam rek. déggal ko. bañ koo jiitu ci lenn. te xam ne loolu mooy sunu njariñ. àdduna ak àllaaxira kon nee na ñu yemale foofu kàddu yi. li nga ñaan ci màggalu Serigne Touba gi. nee na Serigne Fallou li nga ñaan ci màggalu Serigne Touba gi. fekkoon nga ci Serigne bi. fekkoon nga ci bi. ndax mu joxee ndigal ci màggal gi na. nee ba mu joxee ndigal ci màggal gi yàgg na. te amu ci benn xalaat. mosu ci am benn xalaat. mosu ci amit benn xalaat. lu dul ko fekke lu dul nam ko fekke woon. mu wëyee ko noonee rek. ndax nee na ñaar rek moo ko fi bàyyi. wattu. ak sàmm kon nag bis bi ni ko sëriñ bi ni ko sëriñ bi bëgg woon rek njabootam yëpp itam wéyal ko ba mu egsi fii wéyal ko ba mu egsi fii benn xalaat mënu ci am benn xalaat mënu cee am de lu weesu noonee kon loolu ne ci seenu xel daal nee na ñu jeexale ko nag ci sëriñ bi da koo yónni woon ci sëriñ Cheikh jëm joxoon ko ndigal ci liggéey bi ba nu agsee ci koor gi mu yónniwaat ko ni da koo jox ndigal ndax ndogu yi ak liggéey bi mënee su koo boole ñaar yëpp danoo doon farata te xam na ne bu nu bàyyi woon ñu boole ko de kon moo tax mu yebaloon ko ni ko ne leen yeewi ban jotaan ndigal lii kon nag nanu xam ni waxtu wun amee ak yaatu jotaat nañu ndigal ci tàmbali liggéey bii noonu lañu ko sëriñ bi sante wasalaamu aleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu lépp leer sama xel jëkk a dem rek mooy yéen yéen a koy liggéey bi yéen a koy boo foofa daal yeesaloon ko Cheikh Bassirou nee na lii sëriñ bi wax nii liggéey bi ban ko seetee ba gis ko nee na pastéef bi mu ci amoon ay yéene ji mu ci amoon xam pastéefu Cheikh Ibrahima Fall xelam kenn nekku ci xam ni Cheikh Fall rek man lii Mbàkke boo ko waxee des na ko gëm ndax diggante miir bi ak raay bi matul juróomi meetar ba ko sa waajuru bëggee sëñ Modou Moussa Mbacke waajuru sëñ Cheikh Jëmboo la ko santoon sëñ Modou Moussa Fall booba la gënoon a jafe at yan waxoon Cheikh Moussa Fall taxañ na ko ànd ko mbooloo mi sëppeel ko fa ko sëñ Modou Moussa Mbacke bëgg ceeguñ ci limba ni ko Alaaji Ibrahima waxe liggéey bii Cheikh Moussa Fall Falilou wax na ko bu dul benn du ñaar liggéey bu ne am na woote bu ne am na sëñ Cheikh Ndiaye Mbengue fekk ko sëriñ Saliou Fall fekk ko sëñ Cheikh Mbacke Fall fekk ko sëriñ Fallou fekk ko Cheikh Moussa Fall Fallou fekk ko waaye ni lu fekk fii nga toog mustu am yoon amul tànk ginnaaw gëme nañ ko ci sa toogaay bii ak sëñ Cheikh jëm fa mu toog la toog lay jala fee ci feer mën naa ay gën a liggéey bi ciment bi dañ ko mujj delloo kon loolu ñu tàmbali woon moom la Alaaji Ibra de wax nga ñaan ci doole Serigne Touba sa wa sa maam ja sa doole waajur Cheikh Bassirou Mbacké doole bàyyi ba Cheikh Mourou Sa Fall doole maamam ja Cheikh Ibrahima Fall saa borom bàyyi la fi bàyyi ko fi ban jox la caabi bi